والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومصطفانا محمد الفاتح القاتم الناصر الهادي وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي نوي سيطان اك دينيو دجلو ci seen télévision bi di Al Mouhtassimine TV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziyaara di ñaan yàlla suñu nuyoo ak suñu ziyaara fekk leen ci jàmm fépp fu ngeen mën a nekk di ñaan yàlla suñu boroom subhanahu wa taala yal na yàlla nangu suñu koor lépp luñ joto woor ci koor gi yal ko yàlla nangu bépp xeetu jaamu yàlla buñ ci def moo xam naafila yi wala saraxa yi wala dikar yi ak bépp xeetu jaamu yàlla yal yàlla nangu te fulal ñu ko li ci des yal yàlla may ñu kàttan buñ ko mën a woore te lépp luñ ci woor ak luñ ci def ci lu baax yal ko yàlla nangu rëcc rëcc yi nga xam ne dal nañu ci koor gi yal nañu ko yàlla jéggal effaceel ñu ko loolu yomb na yàlla yàlla mën na ko sañ na ko yal ko yàlla def mu mel ni seen waxtaan wii di njariñu koor muy seen jataay bi dellu si waat na ngir waxtaane lépp lu nga xam ne aju na rek ci wàllu koor gi mu mel ni ñi ngi nekkoon ci paasu xët wu ñu tuddee laylatul xadri tabaarakallahu mu nekk guddi gu màgg guddi bari lool ay teraanga guddi gu bari lool ay may yàlla di ci dogal li muy dogal yépp tabaarakallaahu yàlla di ci jégal nit ñi yàlla di leen ci xool batu yërmande yàlla di leen ci teral defal leen ci ay teraanga waaye yàlla di ci sant jaamam yi moo tax malaaka yi yooyu di wàcc نحن نتنظل الملائكة وروح فيها نعم نعم دينا نواتشال نعم تدرابو ينا حمنا موي سيمبوليزي ترانغ يالا يجوخ دوم آدم يي جلد ني تموي لواء الحمد أك لواء الرحمة لواء المعفرة أك لواء الكرامة يويب دي أي نجنل أكي ما يو حمني yàlla dana ko jox doomu aadama yi nga xam ne ñooy woor weeru ko di dundal guddik laylatul qadri guddi la goo xam ne niñ ko waxee woon rek yàlla wax ko mooy ku ci jaamu yàlla ba yàlla nangu ko yow da am am tuyaaba ju gën ju ëpp ku jaamu yàlla guddi yeeg bëccëg yu junni weer te junni weer waxoon nañ ni mooy tolloog tabaarakallaahu juróom ñett fukki at ak ñett quatre-vingt-trois ans ak quatre mois loolu mooy junni weer mu mel ne kon nag guddi la guñ war a parafito tabaarakallaahu boroom xam-xam yi woote nañ ñoom ñëpp ci kan ban bis mooy guddi gi waaye loolu yëpp li ci yàlla namm rek mooy fa tabaarakallaahu ñu dàq ko ci guddi yëpp waaye li ëpp ci borom xam-xam yi te mooy majorité bi bu fekkoon téeméer lañ dañu wax ne juróom-ñaar fukk yëpp nee nañ mooy guddik juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar te mooy bésu ñaar fukk ak juróom-benn ca guddi bu ci suñu jamono dañuy wax ne mooy talaata fa tabaarakallah ca guddi ga mooy guddi laylatul qadr ñu ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañ wax ah kon tabaarakallahu loolu tam yàlla ko yàlla nangu minorité bi tamit minorité bi tam li ñu jàpp ne mooy laylatul qadr ñoom tam yàlla na ko yàlla nangu ndax yàlla yaatoo na nu nekk baaxee na nu nekk fépp fu eh, nit dàkk rek. yal na la yàlla fekk foofa nangul la ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne dañu nekkoon ci ñeenti ñooñu nga xam ne yonent bi wax ne ne teraangay laylatul xadr lum bari bari ñeenti ñooñu ñoom duñ ko mos ki ci njëkk mooy ku sax ci naan sàngara te naan sàngara cigarette beeg dorog beek yamba beeg yi nag tabaarakallaahu yooyu yëpp ci xeet dorog yi ci lañ bokk mu ne koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo di naan sàngara ak di jëfandikoo xeetu dorog yi yow guddik leylatul xadr teraanga ji yàlla di joxe yow doo ci bokk bi ci des ñu waxoon ko démb muy koo xam ne da ngay dëngoo ak sa ñaari wayjur noonu ak ñoom tabaarakallaahu déggoo woo ak ñoom Eh, toppatoo la toppatoo woo leen bàyyi woo leen xel xanaa tabaarakallah di mooy seeni ndigal a ah, moom tam yonent bi wax na ne képp koo xam ne daal dëngoo nga ak sa ñaari wayjur yow guddik laylatul xadar teranga jooju di yàlla joxe yow doo ci bokk bi ci des mooy koo xam ne yow dangay ngay dog mbokk kuy dok mbokk tam ah guddik laylatul xadri teraanga ji ci yàlla di joxe yow doo ci bokk dog mbokk nag mm, lu rëy la lu yaatu la tam tabaarakallaahu doy na sëkk rek ci moom mbokk bi muy wàcc yàlla na ko wàccal mu ne duma wàcc ndax dañ may dog yàlla na ko xanaa du la doy bo wàccee ku la dog ma dog ko ku la jokk ma jokk ko mu mel ne ah, képp ku yàlla dog nag bu yàlla di joxe ay teraangaam yow doo ci bokk moo tax ñu ne képp koo xam ne yow da ngay dog mbokk yow teraangay laylatul xadiri yow doo ci bokk moo tax dafa am benn nitu yàlla bu mag ñuy wax rek ci dog mbokk dafa génn dëkkam ne dafay uti yàlla dëkk ba nag bàyyiwu fa benn mbokkam bu dul benn sëram benn rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen ay wayjuram faatu nañ mbokkam yëpp faatu nañ ba mu des kooku waaye mu bàyyi ko fa nag ne dafay uti yàlla ñëw ci màkka tàmbali di jaamu yàlla di gëstu ba bokk ci nitu yàlla yi gën a mag ca màkka bokk ci borom xam-xam yi nga xam ne mooy ñooy ibbee ca màkk ku am lu muy laaj moom ngay laaj tabaarakallah ku am sax lu muy dénkaane moom ngay dénk sa alal mu nekk nit ku baax ku ragal yàlla ku sell lool yiw lool ñëpp wóolu ko mu am benn waay nag ñëw di ko dénk si alalam jox ko alal ju bari dénk ko ko moom nag nitu yàlla boobu ku ko mas a alal day ibbi benn carnet rek ne diw doomi diw ci bés sangam denk na ma nangam ci alal tabaarakallahu dugal ko ci biir carnet bi denc ko ah mu mel ni biñ ko joxee alal jooju mu ne damay bàyyi ba suba mu bind turu waa ji dugal ko ci carnet bi ca guddi ga rek nitu yàlla boobu génn àdduna waa ji bi mu ko déggee mu ñëw ci këram ñaa waaw seen baay amul lu mu leen wax ci man ñu ne ko déedéet mu ne seen baaykat dama ko dénkoon sama alal ñu ne ko ñu xool carnet bi muy bind bor yi suñu baay da ko jubla te wóor ku ko mas a dénk rek yow fii lay bind sa tur ñu xool tur wi gisuñu ci turam waa ah, te alal ji bari lool waa ji jaaxle nag xamul lu muy def mu dem seeti beneen nitu yàlla dem seeti beneen nitu yàlla ne ko ah, man kat nitu yàlla bii génn àdduna dama ko dénkoon sama alal mu faatu te carnet bi muy bind bari sama tur nekk ci nu may def ba jot sama alal mu ne ko waaw képp koo xam ne yow faatu nga te dem aljanna yow ah, boo ko woowee turam ci teenu zamzam booba teen bi melagul nii ñu ko def teen la woon boo sëggee ca teen ba yuuxu turam dana la wuyu bu la wuyoo nga wax moom ah waaja dem ca teenu zam-zam sëgg ca yuuxu turam kenn wuyuwu ko mu yuuxu turu nitu yàlla boobu kenn wuyuwu mu yuuxu waat ko kenn wuyuwu ko mu jaaxle dellu ca nitu yàlla ba ko waxoon demal ca teen ba mu delluwaat ca moom ne ko ah man kat jaaxle naa ndax dem naa ca teen ba yuuxu naa turam ay yoon kenn wuyuwuma mu ne ko kon de musiba am na kon de sawaay nekkul aljanna loolu de musiba la kon de da ngay dem yaman ne ko yaman am na benn xur woo xam ne ñépp ñi nekk safara ko boo sëggee ca xur wa boo leen woowee ñu wuyi leen mu dem ca xur wa ca yaman tabarakallahu sëgg wooturu goor gi rek goor gi wuyu ko allahu akbar waaji tiit nag waaw waa ji dénkaane woon alalam tiit ndax góor gi ni mu baaxeek ni mu selleek ni mu bore xam bëree xam-xam ak ni mu yiiweek ni mu ragal yàlla ak ni mu wóore mu wuy góor woo góor ga ca safara mu wuy ko loolu daal jaaxal na ko mu ne waaw góor gi man de li ma fi indi woon sax dama koy bàyyi nag faf ndax lii daal jaaxal na ma lu la indi safara daal jaaxal na ma torop torop torop mu ne ko lenn rek la ma yàlla di toppe ba dugal ma safara mooy bi may jóge sama dëkk di ut yàlla dama bàyyi woon sama sœur sama mbokk mu jigéen toppatoo wu ma ko bindu ma ko lettre dundalu ma ko xawma ci ban situation la nekk ma ko ak dog boobu ma dog sama sœur boobu moom la ma yàlla toppee ba dugal ma safara ah waaye yàlla baax na comme yàlla indi na la fii ba nga mën a wax man a ah, xam naa li la fi indi mooy sa alal ji nga ma dénkoon jotuma ko woon bind ci carnet ba mi ngi waaye mi ngi ci sama suuf waroon lal boo demee rek tabaarakallaahu nga ibbi ko ah, ma nga fa ma ànd doom ja ibbik eh, suuf waroon lalam ah, dugg ci ron lal ba génnee xaalis bi waa ji nag na ko boo demee nag na nga dem ci sama dëkk ma nga ca dëkk sangam sama sœur bi ma nga ca dëkk sangam nga dem fa ne ko na ma baal waa ja jël takk fasam dem ca dëkk ba ko netu yàlla boobu wax di laajte di laajte ba gis sëram boobu ne ko sa càmmiñ moom moo ma yónni ci yow mu ne ko ah, sama càmmiñ faatu na de bu ma yokk naqar yow tam mu ne ko waaw dama ko gis waxak moom mu ne ma fa mu nekk daal du fu baax te li tax mu nekk foofa mooy sàggane gim la sàggane parce que dafa dog mbokk moo tax yàlla toppee ko dugal ko foofu mu bëggoon nag nga baal ko mu ne ko baal naa ko ci xol bu sedd guy ci gàttal rek waaja ba mu delloowaatee eh, màkka delluwaat ca teenu zam-zam woo waaja ca ña ne aljanna waaje def ko wu nitu yàlla ba def ko wuyu kon nga gis ne dog mbokk lu garaaw la tabaarakallah ñun ñëpp ñu góorgóorlu fonk suñuy mbokk ndax wax nañ ne mbokk yi koy dox yàlla saxalu ko sax karaw tabaarakallah yi koy dundal yàlla defu ci karaw taqalu ko te mooy làmmiñ bi dox mbokk di waxanteeg sa mbokk lu baax amul karaw sa tënk bi nga xam ne yaa ngi joxanteeg sa mbokk alal wala teraanga ju mën a doon tënk boobu saxul karaw sa ndëggu li nga xam ne mooy dox moom tam pour dox mbokk moom tam tënk loolu saxul karaw yooyu yëpp yàlla bëgg rek ñuy fonk mbokk wax nañ ne képp koo xam ne yaa ngi fonk sa mbokk yàlla dana guddal sa fan moo tax xam-xam yi ci tafsiir yi bari ci ñoom wax nañ ne yamxu llahu ma yacha wa yusabbit wa indahu ummul kitaab boobu yàlla wax euh, ci alquran ne moom yàlla mooy effacer lu ko neex mooy far lu ko neex mooy bindaat lu ko neex gannaaw ba mu ko mooy effacer lu ko neex gannaaw bi mu ko bindee bindaat ca lu ko neex moom yàlla parce que moom moo amee umul kitaab wax nañ ne bokk na ci lii yàlla di effacer mooy ñoo xam ne dañoo waroon gàtt fan bu ñu dee dundal seen mbokk yàlla dina effaase seen gàtt fan kooku def ci ñu nekk ñu nekk ñu gudd fan moo tax Abdallah ibnu Omar nee na nit dana desul ci atam ci dundam lu dul ñetti fan muy dox mbokk di dox mbokk ba yàlla effacer ñetti fanam yooyu bindal ko ca fanweeri at waaw nee nit tam atam dundam mën naa des fanweeri at waaye muy dog mbok di dog mbok ba fanweeri atam yooyu ñu effaceel ko ko bindal ko ci ñetti fan a ah, moo tax ñu ne till xeetu rabi àll yëpp moo ci gën a gudd fan bokk na ci ñi ci gën a gudd fan ñu ne lu tax parce que moom moo gën a xeeñt mbokk till fu mbok mbokkam nekk dana ko xeeñt ba uti ko kon fa tabaarakallahu dundal mbok ah saxaaba benn waaye mas na ñëw rek yore gi gileemam ah ko sax te ci laab gi rek laaj yonent bi ne ko dama bëggoon nga tegtal ma loo xam ne boo ma ko defee dem aljanna mu ne ko na ngay jaamu yàlla te doo ko bokkaale ak dara na ngay julli julli juróom na ngay woor na ngay na joxe adaka waaye na dundal mbokk nee boo dundalee mbokk daal yow sa aljana yomb waaye boo dee dog mbokk sa safara yomb kon nag ah tabaarakallaahu Ah, loolu jikko la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel ñu ngi leen di jéggalu ci guddal bi fa tabarakallahu kon nag ah, ah, seen émission bi di njariñu koor lool la leen tey ñu ngi leen di jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu